laataa ci euh, gën a yaatal yi dañuy waxtaanee rek institution yi nga xamante ni euh, bëgg nañ ko supprimer mu bokk ci actualité bi tey euh, ndax nag député yi daal nañ leen convoqué en session extraordinaire et d'après le communiqué de la de la présidence modification yi nga xamante ni bëgg nañ ko amal ci loi yi dafay viser rek à supprimer deux institutions muy 16 ak li nga xamante ni moo di HCCT au conseil des collectivités territoriales selon vous lan moo tax ñu bëgg a dem vers une suppression de ces deux institutions. d'abord il faut rappeler que c'était une euh, promesse de campagne. Euh, promesse de campagne euh, par rapport ak ñi nga xam ne ñoom la Sénégal yi dénk réew mi au-delà de ces de cette personne qui aujourd'hui mooy nekk président de la République di Bassirou Diomaye Faye la quasi-totalité des candidats qui étaient en liste à la présidentielle ou qui avaient été recalés dans le cadre des parrainages au tous pratiquement du mën a mais au tous pratiquement la quasi-totalité ils avaient promis la rationalisation des dépenses de l'État, ce qui passerait par la suppression de certaines institutions qu'ils jugeaient budgétivores. Mm -hmm. De ce point de vue, si le président Bassirou Diomaye Faye euh, convoquait Euh, session euh, demandé à à l'Assemblée nationale pour ñu euh, dajaloo. pour mën a waxtaanee li nga xamoon ni suppression bi il ne fait que respecter une promesse de campagne. parce que au-delà des politiques citoyens sénégalais bi ñu ci bari ci ñoom boo leen laajoon dañ leen doon wax que ni institution yu amul njariñ je pense qu'on peut récupérer après la suppression de ces institutions lu toll ci fukki milliards ak juróom wala juróom-benn. Mhm. yoo xam ne day dellu ci gafak ak te loolu war nañ ko mën a réorienter feneen tey nii. lan moo di dëgg dëgg dëgg njariñu euh, au conseil des collectivités du dañu ne amul benn njariñ mais Sénégal yi seen wàllu bopp amaana ñu xoo si laajoon si ñu bari dañu naan ñun de suñu bëgg-bëgg moo doon loolu de nañ ko dingi fii conseil économique social et environnemental dëgg la naam du euh, du guleet ñu fekk ko fi parce que depuis le président Abdou Diouf mi ngi foon si tu te souviens bien ça a été c'était dirigé par Famara Ibrahima Sagna quand Abdoulaye Wade le président Abdoulaye Wade est venu mu jël euh, euh, conseil économique social soppi ko def ko CRAES euh, foo Mbaye Jacques Diop moo ko doon jiite. ba ñuy yegg ci conseil économique social et environnemental sous le régime du président Macky Sall donc ñii fi toog ñoom dañu ne woon institution yooyu gisuñu njariñu loo xam ne dañ koy andil askan wi parce que quand même c'est des institutions amul décision bu ñu mën a jël rapport bu ñuy proposé président bu ko neexee bu ñu ko ko joxee mu ubbi turoiram dugal ko fa fàtte ko bu ko neexee mu xotti ko meeru bi jaay caaf su bopp di koñ loo wetu di ko jaayee donc loolu noonu la noonu la demee donc de ce point de vue là buñ ko buñ ko supprimer ay la woon ñu bari daañu tàccu parce que tamit bëgg-bëggu ñu bari la waaye itamit booy xool institution yi tëggin nga nañ ko tëggee mhm. maanaam am lañ say fal ak li nga xam ne daanaka président moo am prérogative fal ay nit ay nit lu si bari dañ doon wax c'était pour caser une clientèle politique euh, ku ku la jàppale nga gis ne kii amul foo ko mën a dugal nga def ko conseil économique social et environnemental wala nga jël kay dugal ko fee la nga xam ne moo di au conseil des collectivités territoriales te encore que booy xool ñun euh, pays su développé bu ñu doon institution yeeg administration de manière générale la ñuy consommer ci koppar daanaka dafa bari la ñuy consommer ci wàllu woto kese parce que tamit nga xool oto euh, institution yi ñu jël ku si nekk ku si mel ni HCCT jox la woto boo xam ne ça mhm. coûte entre soixante et quatre vingt millions. avec cent cinquante membres voilà cent cinquante membres au moins millions si woto kese sans compter le carburant. ak yeneen yoo xam ne da siy duggu mhm. je pense qu'on peut aller dans le sens véritablement si l'on veut euh, mën a teg ay jéego pour dem ci li nga xam ne moo di euh, objectif de développement il faut quand même que ñu xam ne ñun mhm. nous soo un pays sous-développé très endetté